lii man maa fi nekk maa ngi tudd Babacar Mbow mhm. man maa nekk ci permanence bi man maay gérant permanence bi mhm. li ma ci sant daal damay liggéey marché ba wàcc bay bay ñëw dañ ma ko wax ma ne daal du ma am damay laajte ba am lu ma leer ma dem ci shérif dem ci shérif shérif moo ma wax loolu moo ne man laaj shérif mu ne ma góor gi moo noppal loolu laa ci am nit ku baax la ku bëggoon parti bi la woon moom moo taxoon ma toog moom moo taxoon ma toog ci parti bi yàgg naa ci parti bi may doon xale depuis ci ñoom Mantoulaye Diène laa fi nekkoon laa nekk ci permanence bi gérer permanence waaw ba tàyyi ci kër Wuseen waaw ak fii ci ginnaaw waaw mu lay defal teraanga mu ne defal na ma ko ci kër àdduna waaw li ma ci wax daal ñépp jóge na fi nañ meloon nañ ko melaat ñu nekk benn topp ci ginnaaw ñi fi nekk loolu laa leen di dénk ñu bañ a xuloo bañ a xeex yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana waaw